final poids bangok diggante Tony Junior à droite ngembo ngembulu orange di ak ngañ seen à gauche ngembo ngembulu ñuul ñu ngi ñoom ñaar ngañ seen Tony Junior Tony fi mu toll nii moom mooy attaqué Tony ak ngañ seen combat bi dafa mel dafa nar a gaaw ah ngañ na maninam waaye xale ba résisté na ngañ da ko bëggoon a waaye Tony rëcc na da koy kal kaluk biti Tony da koy kal kaluk biti waaye ngañ day génn ngañ day génn ngañ day génn ngañ da koy kal ngañ génn na ngañ génn arbitre avertir na Ngagne Sène ñu dellu si waat ci digg géew ba mu sifflé waat Tonnerre ngi koy sëkkatal Tonnerre ngi koy sëkkatal waaye Ngagne tànk ba la naan ñàpp jàpp loolu fooram la Ngagne Sène Tonnerre junior final poids lourd Ngagne Sène junior final poids kon maa ngi lay kontaane borom ñoxolor Ngagne Sène Tony Junior final poids lourd Ngagne Sène moo ñëwoon ginnaaw ngembo ngemb lu ñuul li Tony Junior moo ngembo ngemb lu orange li ndeysaan xale bi daa jóge ci ci victoire bu moo tax moom fit Ngagne Sène Tony Junior ngañ siñoor ak Tony siñoor ñu ngi noonu déggal ngañ seen ak Tony siñoor ñu ngi noonu ca digg géew ba benn avertissement pour l'instant ki ko am mooy ngañ seen mu amagum benn avertissement ngañ si gina taxaw Tony sigi waat ngañ seen Tony Junior Tony jëli na wala ngañ jëli na tànk ya Tony génn na ko ngañ ngay def maninam ngañ ngay def maninam waaye Tony mii waaye Tony mii Tony nga koy saxal tànk ba lan moo ca ne ngañ daa bëgg a génn attention Tony weele na ngañ ngañ weele na Tony ngañ weele na Tony ne ndaa sifflé ba pare ngañ def na force am bi yëpp Tony résisté résisté ba arbitre sifflé ñu doog a andi ca suuf dañuy bërewaat. ñaari avertissement ngañ seen am na benn Tony siñor am am na benn ngañ seen am ñaar avertissement ya ngañ seen am na ñaari avertissement Tony am benn arbitre sifflé waat génn seen diggante. ngañ seen troisième avertissement bi boo ko amee da ngay perte làmb ji. cey lii final poids lourd ba ngoog ngañ seen ngembo ngemb lu ñuul li Tony Junior ngembo ngemb lu orange li ñoom ñaar ñu nga ca ba léegi. e eh, ngañ jël na tànk ba Tony wayale na ko Tony wayale na ko war ko ndombo Tony wayale na ko war ko ndombo ay waay arbitre boo puusoon ay arbitre moo puusoon arbitre ay waay arbitre moo puusoon ay waay ngañ seen ay waay arbitre puusal arbitre puusal arbitre puusal arbitre seen day jóg ngañ seen day jóg Tony daan na ngañ seen Tony Junior daan na na ngañ seen na fii Tony Junior daan na Ngagne Sène